ويتجنب أن ينال منها شيئا فإن ابتلي بشيء من ذلك حرص على إبراء ذمته والتحلل من ذلك قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وقال أيضا من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان قضيبا من اراك وقال ايضا لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء إخوة الإيمان من الظلم الوقوع في أعراض الناس والخوض فيها بغيبة أو قذف أو اتهام وهتك ستر وشتم ومن الظلم المماطلة بدين أو قرض وذلك بعدم وفائه أو أدائه إلى صاحبه وهو يقدر على ذلك قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ومن الظلم أيضا عدم وفاء حقوق العمال وبخس حقهم قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه وظلم العمال لا سيما الضعفاء منهم سبب هلاك المجتمع ونزول النقمة عليه وما هلكت الأمم السابقة إلا بظلمها وبغيها وتعديها على الضعفاء قال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا عباد الله ينبغي لكل مسلم ان يجعل هذه الايه نبراسا لحياته وجماحا لشهوه الظلم قال عز وجل انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون انك ميت وانهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقد بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عاقبة من لم يلق بالا لهذه الحقيقة فقال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أخيني وإلا تيغنا ويسلن النبي من كم محمد صلى الله عليه وسلم ألا غندا كسيدو نيما جيدي والنبي من كم أخني حق كمون حقو ألا بني في خورين fiyani a xoteñani allah bange subhanahu wa taala ama fi roxondi allah gana maxa gemmeña komebe danga ke bire noxo ken ni komebe aga fankene wurondo kiye kudo a maxa hadamaren me komon xaqe ŋutu ken ni komobe allah ger tofik ñagadanga a biriye ken ñani serebe allah ger tofik ñagadanga anta soron torono ay latuma bakka fofo sugini toro man tora na jofa allah ko monga na tokoti tora ni fu khorea kamenen dali waqad khaba man hamala zulma yemmen perdi attaque bono serebe ganani le xeman can kota angara toran pollabane andaga jofe katta allah subhanahu wa taala komon angiri tora andanya haqqe be gandallanaxa allah ra yampana ke xan do komon naxa serebe allah gar tawfiq ñanga danga ani naxanen ciitina wurondo kiye ani haqqilen toqo kenga yelli allah gana kome be jarage engrais parce que hadamaren me ma timme allah tora allah jofana sere xa a haqqilenta taxunu gafati andari na dubarindi bakka ken tora na yampe muru an xawañano kunduña na toxoti fare sallallahu alayhi wa sallam artuindo ye hadise sahantenga nanti seresu giri akin tora ke bire nogon kondu ferenya annari yampe muramaga anna dubarin baka ken tora kat kota garini ken kota naburentu nongo khalisintu nongo avokantu nongo manani nongo akota gollu surundo gollu buru ko agarini kongi hadise nga mogombe hadise legerinte farendi tuyindo ya khari sallallahu alaihi wasallam hadise tana hadise sante nanti ibe gana raga nan tangoton tenyan ande fere fere nya ande sere hakken bose tikune aro la hanni wafu anda ga mande sorompana anda an kapalle ma an ga muslime anda hakken mutu anna tu nanti anke nga yimbe nga jebe andanga allah ra aljanna haraman idan allah fere nya na duna anna sorompana anni hakken mutu kha la khaya man chan kota atu nanti antugadi yimbe nyani allah ra aljanna allah ra ken haramanga farengir ken ko sallallahu alaihi wasallam sahaba go ko si farendanga ati a allah fare kharagananya fi labani fi ne farenti sallallahu alaihi wasallam khara kami ci sare haqqe ci sare angir sare haqqe mutu amma yampe murama ando kengana jofe allah subhanahu wa ta'ala ay nyana sababu agallo no yimbe no akhi حقن بت في رغي سر وسنجتنا وانا تنتي في خوران يعني الله بن سبحانه وتعالى أرسل ما ننتي بريك كندو أري خفونيا سنبنجينا فوي ما نابرين ما كبرين نين نعنايا ناكي كتو كندو ناكينيا ناكينيا لغمان تان كوتا الله سبحانه وتعالى أنت كيتي نو أرومينا غفال أنت صلى الله عليه وسلم خرتو ننتي حق بني خاجي وتبريك كندو لغمان تان كوتا نعناري ما غير حقكم حق انتاجيا الله بانك سبحانه وتعالى na toxota ganña nanti sereer su sembe nganga kebe geni nga nang annan deberi anna deberi la xeman can kotan tonongo kiten tonongo ken qotona alla tonongonta xun nan xooro ken danga subhanahu wa taala alla nan tonongonti kenga ay farenti sallallahu alayhi wa sallam le xeman can kotan nganari haqqun cu sagene kacci haqqugumunga angir sere su toro alla na attamon tugamina ati hari tammisebe bennengaye agani bireke nogoyere kundu aga tammise tana takkini bennente agir le koye lehemancan kota allah ganari allah ganiriti andi birandi kebe benne gemaye ani tambuntugandi nana bennelle ani tambuntugandi kati ga yilleni ga ñana dori jurang ahini keni kenni dabaniña fama balu ko ku halagol mubene allah giri hakkilenkinoye na annabi ñummun kayo na qur'ana yankandi kattoy o ku xalle ñar kam moxo oy simmana nanti hakkunu ku danginu kundoa allanto tirini ne la xeman kota wana tu axini hakkun pason a gebe ñani ay kappa hakku xoru beni godo o ga kun yebe yebene a fo fanangeni kebe ken ne a nenen kara ogeri ken lagana yebe yebe an ga sigi na kusu an ga an puni muslime an ga fete kamma an ga fete bonondini an ga togon bonondini an ga kadefini an ga magan an ga ga horoma an ga girindini an ken danga nanti ken ni fineya hakko hakkentuno agan koro ke ken yantik farin sallallahu alaihi wasallam hadise sahante ati hadamaren men ga digame koŋo digame be ay simmana nanti anti hakkile tokkay kella ñana sababu ana rondi yimben nogoy ana fitta jahannabano ay kappa hakku be ni soronganti hakken to kay ke bireno on kundu kenya na wandi ni mutu, anna wase soron na buren caga ne dui i woni danga indar khalsi mutam ma tambo angri kini yatan irangoto akin haju yantan ina khalsi ki inan pana digame tampille wujine kininga ke kininga ke haju angri kinai ari falle koya adanga nanti iran karo anti tambo ke tugana tambo ninge foy maga anti dungena ayilanin farati sallallahu alaihi wasallam tonyu ndeng madangi kenga ay kappa hakube ni surongiri yebe yebe oga ki yebe kundu akhini keni golnyangano haqqi allah giri sorokina ngai ga golnyangam maka iga golnyangandanga ferenya anni haqqen kine anda duguta golnyanga nokumbe a haqqen kine maga hakke nyebe yebe maga fobege agan kawa kebe kinne kitta akine lesiyama soro lampunto gol ñagaro ɓene anga tu nanti keni sere lampunteña mukteyani agiri nokku anti sere sutu allah ya haqqen allah ya wasena kinne aranta tella nokku anta killetu anti tribunal nokkutu anti droitu anti harbanetu anken tinan cangatini kuña annatu nanti kun hakkenya khorene allah bange subhanahu wa ta'ala sero fodo be ni gadangi umuto fanoni manen ci allah giri i halaki na togoti ini lampunto ini sembe ngagan kunya kenyanti kemene ngati nanti qad ahlakna alquruna qablakum soro fono ummato faso be fono be ni gadangi iri halaki ma toronto to nyangundi birambe iga torondi idan akhini sere sun qawa drogotono allah giri kebe ko ngora qur'ane ke aya kundu an na torsi bire ke nogo an ga kisini haqqu ku mogonɓe haqqile mane nan kisini wande haqqe ŋutin allah gir kebe ko faren nanga sallallahu alaihi wasallam nanti innaka mayitun muhammad atu nanti an kalla xa suɓeni ga bire ku o exe o gara kara a xempene no ɲa la allah armane ko thumma innakum yauma alqiyamati inda rabbikum tahtasimun le xemancan kota o sikki o kaman jom me naxaniya subhanahu wa taala oga kiite kemenen ga kiitino naxalle xemancan kota xooga telle tribunal nga moxon be alla ga oga fennin wona tunanti le xemancan kota ke lini fare sallallahu alaihi wasallam artuindo ye hadise sante nanti iyeegemi haqqilen toxo ke bire ke noxo ke ñani sirebe ga perdi ke ñani sirebe ga daga fayt nga ati sahaba ni na khaitu serebe ga daga fight nga serebe ga perdi iti serebe khalsi ngebe nyama ha goden taxa maxa marché ni sin taxa a bitigi nga xar ban faren ci kempeti ser perdinte kempeti serebe ga daga fight nga ati kenne a serebe gir le khayman ci ankota ando salle ling salle ngebe li sume ngebe jakka ngebe anani ande ke ka ande ke khadafi anda ke na bure nyumutu ande ke fere njoxo ando ku haqqunilli allah b a n g i subhanahu wa ta'ala ina ngolli sirego u t u ina ketuka an golli sirego u t u ina ketuka ina fotu salle ina ketuka ina ketuka na t o k o t i n o halisintino golli siru golli buru golli siru ku sugana ñeme soronga sikki i h a k k u n i m a timme ini golli buru ŋutu ini ran k a m a ina n g u t u nallo yimbe n o o allah gando kisikenga بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد بقي نيسانتي الله سبحانه وتعالى julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi mbirum aq lu rëy la ci yàlla subhaanahu wa taala aqu jaamu yàlla yi subha lu rëy la ci yàlla subhaanahu wa taala ki borom ji defal tawfiq dëgg-dëgg ci dund gi mooy koo xam ne bu xëyee li muy moytul mooy bañ a jël aq kenn bañ a lor doomu aadama jaamu yàlla subhanahu wa taala du leen lor ci seen wàllu alal du ci seen deret du luy jëm ci seen honneur ndax doomu aadama tamit matul bu ko borom gi natte ba mu tooñ kenn ci jaamu yàlla yi subhanahu wa taala xelam du dal mukk tànk ñëwul baalu àq delloo àq nit ñi balaa bisu peccum di ñëw ndax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp ku tooñ moroomu jullitam ci dund gi na nga ci seppeeku balaa bisu di ñëw bis boo xam ne amul xaalis alal nekku fa li fa nekk mooy jëf yi baax ak jëf yi bon yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ku dagg dara ci aq sa borom sa moromu jullit ci dund gi fi ndax da nga neex lammiñ nga waat fexe ba wër ko nangu akam wala da nga bëri ay relation nga jàpp ne yaa ko ëpp doole jël akam même bu nekkee lu tuuti yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kooku safara moo ko war yàlla da koy aramal aljanna mu am kenn ku nekk ci sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu laaj yonent bi ne ko yaa rasulallah même bu nekkee lu tuuti day dugg safara yenent wi ne ko sallallahu alayhi wa sallam même bu nekkee lu toll socc boo jëlee loo xam ne moomoo ko ci sa moroomu jullit yowmal qiyaama da nga dugg safara bu la borom di jéggalu subhanahu wa taala kon mbokk yi dund gi nekk nii borom gi indi ñu fii ngir caaxaan ku am doole nga jaay doole koo xam ne ku néew doole nga xam ne loolu boo ko defee dara du la ci fekk borom bi subhanahu wa taala mandawum ëpp na loolu bu ñu fi indee ñi am doole di daan jaay doole nit ñi fi di nangu seen alal di tuur seen deret di tàngal seen xol jàpp ne yowmal qiyaama bu ñu demee ci kanam borom bi subhana bi suñ penc dara du la ci fekk yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam mandu borom bi subhanahu wa taala weesu na foofu nee na yowmal qiyaama da ngeen di dolloo àq yi ci bopp ci borom ak bis bobu bokku na ci mand borom gi subhanahu wa taala même malay fekkee ne kuy go xamne ko am béjjën bi nekkon ci bir aduna gi mbeuk kenen yenent bi neena sallallahu alayhi wa sallam al alqiyama yàlla dina ki amuloon béjjën dina ko jox béjjën mu fay loolu bu fekkee ne malale te amuñu xel yàlla yenn yennuñu ci ñoom benn yenent téere wàccu ci ñoon ñooñu àq bu nekk seen diggante yowmal qiyaama yàlla da koy delloo ñun ñoo xam ne ay doomu aadama yàlla teral ñu wàcce ci ñun ay téere yónne ci ñun ay yenentu dañoo jàpp ne li ñuy def fii nii day nekk neen tooñ yi ñu tooñante ni yorom bi subhaanahu du àtte suñu diggante loolu tax mbokk bokk na ci àq yi nit ñi di gën a sàggan mooy yàq der nit ñi jaamu yàlla li jëm ci wàllu làmmiñ bañ a suñ làmmiñ foo toll yaa ngi yàq deru nit ñi jaamu yàlla yaa ngi leen di tooñ immaa nga saaga yaa ngi saaga ki yaa ngi jëw ki yaa ngi euh, xotti sutura kenn lu nekk yaa ngi ci sa lammin téyewu ko ndax yenent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam nit ki léeg-léeg day wax wax joo xam ne du ci bàyyi xel wax yooju mun na ko dugal ci safara kon lammiñ lu am solo la bokk na lii gën a dugal nit safara comme yenent sallallahu alayhi wa sallam li mu ko waxee xadis mooy lammiñ julli dafa war a gën a góorgóorlu téye lammiñam bañ a jël àq ci loolu bokk na ci tamit mooy àq yi nit ñi gën a sàggan mooy jël bor ci nit ñi bañ ko fay jamono ñu toll ni nit ñi dañoo jàpp ne bor dal bo muusee ba xam am làmmiñ mun nga dem nit ki nit ki wor ko wax ko wax ko joytu ci mom ba mu jox la xaalis ba mu wolu la jox la xaalis bu jamono fay joté nga kay dawlo nga jàpp ne lolu dang ka ya ko gëna mus muus yonent bi sallallahu alayhi wa sallam matlul ghani dhulm bañ a joxe alal delloo alalu nit ñi te nga am ko nee na loolu tooñ weesu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la kon mbokk yi bor dafa nekk lu lu rëy boo jëlee boru jàmbur fexeel nga am ngor delloo ko boo ko delloowul nga jàpp ne yow kooku bàyyi na la yàlla am ñoo xam ne boo waxee bàyyi naa la yàlla comme fayoo ma dañ ciy kontaan dañuy jàpp ne dara du leen ci fekk mais bisum pénc buñ ñëwee ci kanamu yàlla subhaanahu wa taala ci kanamu borom bi dañ ko rëcc rëcc woo xam ne amatul loo xamul amatul dellu bokk na ci àq yi ñi sàggane tamit mooy bañ a joxe àq ñoo xam ne ñuy liggéey ci yow liggéeykat surtout ñoo xam ne ñu néew doole koo xam ne jóge na ci réew mi ñëw jóge beneen réew mbaa beneen dëkk ñëw liggéey si yow nga xam ne ne kii ku néew doole la dafa ñëw daan dooleem yaa ko ëpp xam-xam yaa ko ëpp ay relation yaa ko gën a xam droit yaa ko gën a xam loi moom xamul loi xamul droit xamul dara lu la neex nga teg ko ci kawam parce que xam nga ne moom xamul yoonu tribunal xamul avocat xamul xamul doo ko jox àqam xamal ne ñooñu ñu ñooñu ñoo xam ne dañoo néew doole ci biir société tooñ ñooñu mun na nekk sabab yàlla wàccee mbugal ci biir société ndax borom subhaanahu wa taala loolu la wax mu ne xeet yu paase dama leen alak biñ tooñee seen tooñ bu mu demee ba ëpp ñi am doole di tooñ ñoo xam ne amuñu doole ñi leen di jaay doole moo wàcce mbugal ci seen kaw ñoom ñëpp kon mbokk yi nañ ci bàyyi xel loolu bu baax a baax ñiy liggéey ci yow fexeel nga jox leen seen àq balaa ngay yóbbu dara sa kër ñiy liggéey ci yow. ñii daan seen doole ñàq balaa seen ñàq di woo fexeel nga jox leen seen àq balaa ngay jënd dara di ko yóbbu sa kër loolu boo ko sàgganee danga xam ne yowmal qiyaama borom dina la laaj subhanahu wa taala te da nga doole àq mbokk yi jar na ku nekk ci ñun am benn aaya boo xam ne boo buggee mus musul di jël àq jaamur na nga jël aaya bi def ko torche sa dund mu lay niital mooy borom bi fi muy wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muhammad xamal ne innaka mayit ne ne yow da ngay faatu da ngay génn àdduna wa innahum mayituun ñoom tamit dañuy dee ñéppay dee waaye li ciy tag mooy thumma innakum yawma alqiyamati inda rabbikum taxtasimuun na ngeen xam ne bisum pencum da ngeen dellu ci seen borom subhanahu wa taala ngeen layoo ci kanam borom bi subhanahu wa taala du dee kese dañuy dee kese mu jeex déedéet da ngeen di dellu ci borom bi subhanahu wa taala ku nekk ñëw layo ku jël àq jàmbur nga delloo àq wi kon lii waxtu aaya yoro yàlla subhanahu wa taala li fi wax ni ku nekk boo ko bàyyee sa xel da ngay moytu da nga xam ne dund gi dafa gàtt waroo nekk fi di jël àq nit ñi boo ko jëlee te xam ne da nga koy delloo لو تخ يونس صلى الله عليه وسلم خمل نتي بنن حديث مج كو خامني لي لي ني واخ ني بايو تي خل دا كا سالفاني دي سالفاني اكو ني ني كوكو نان لي مجي يوم القيامه يونس بي نينا صلى الله عليه وسلم بيمي توك اك صحابه مو ني اكسي خام نين كان موي نيت كو دم فايت نيت كو بيرت كو خامني اموتول دارا كو دم فايت صحابه دال ني يونس صلى الله عليه وسلم اه نيت كو دم فايت دال موي كو خامني اموتول باغاز اموتول مارشانديز kooku mooy ku daanu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam du kooku du kooku mu ne ki dem fayit dëgg-dëgg mooy kii ñëw yowmal qiyaama bi sumu pénc mu andi ay julli julli bu bëri indi ay woor yu bëri indi ay azaka ay sarax ay jëf yu baax yu bëri yu tolloo ay montagne mais bi muy ñëw taxaw ci kanam borom bi subhanahu wa taala fekk kii mi ngi saaga kii mi ngi dóor ki mi ngi jël alalu ki mi ngi jam ki mi ngi jëw ki بنيوين يوم القيامة فوف أمول خالص أمول ترى أمول أفوكا جف يباخ أك جف يبون نجيل تي جف مي يباخ فايكو كي فايكي فايكي فايكي بجف بجف يب جاخ جف جاخ يب جاخ تنين يتحو بطي سن أقيمتول نجيل تي سن بكاري تاكو تكاوم ندوغل كو سفرة يالني يالا مسلول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح ذريتنا اللهم أصلح ذريتنا يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا